ñu koy doore ak ki nga xam ne moom moo di Mak Vision ah nekk photographe boo xamante ne ni tarkala macha allah célébrité yu ci baree bari mariage yeeg ñoom seen yéen a ngi gis noonu moom ak jabaram ah ñu def seen ay sutu yu yu am jom mais nag fi daal dafa mel ni boo nekkee ci sa bien-être di dundu bànneex yow ak sa jabar day mel ne kaay day tàmbali rek ndax xale jigéen yi nga xam ne nag dañoo toppoon dañoo toppoon Mak Vision ah nga kii nii ki mu takk nii copinu rakkam la meilleure copinu rakkam maanaam rakkam moom moo ko may xaritam. Mhm. mais mag dafa préparer woon pour femme bi nekk deuxième femme am mais amoon na benn femme boo xam ne moom la mag doon génnal. Mhm. ba ñu waxoon waxu mariage ba mu waroon takk et mhm. mu mel ni que tas yaakaar dafa jub foofu vidéo yi tàmbali na génn ak photo yi ak audio yi gars yi ñu ngi koy tàmbalee partagé maandu gi mu maandu woon. noppi gi mu noppi woon ndekete mag am na leneen loo xam ne làmboon na ko ci suuf meex sedd rey la hmm? loo instant yi daal mi ngi toj mu ngi toj dëkk bi <laughs> mag nii te li mu def Aziz Ndiaye raw de xam nga ah. xew Aziz mil ba 6600 moom noonu laa ko mën a jàppee 6600 hmm. photographe ñëwoon nañ fa hmm. mag moo nekkoon king gi daal maanaam moo nekkoon ca kanam mais am na ay photo yoo xam ni Euh, dafa commencé ñu koy partager les réseaux sociaux yi te doomu photo et que dafa doy waar. fa nekk ay photo yoo dafa donc mag gars ñu koy que ni na mhm. donc am ñu ne nag xaw jabar moo changer jikkoom parce que mag day TikTok. mag yu ñak fayda lay def yo xamne ne daaw ko def alors que dañ ko yaroon ci diine ak l'islam mu nekkoon nit bo xamanteni nit ñi dañ ko estimé woon mais nee nañ daal jabar di moko commencer changer parce que dafa wor jigen tok wor jigen après dañ lay donc lolu lolu jigéen jigéen moo kay jigéen moo sonn kay amee shooting tabaski bi nag moom suma juumul cinq 7 7 sept sept solo la jabar ji solu sept macha allah xëy nañ ci shooting ba ngon jot Ah, rafet na ah, macha allah ah, macha allah rafet na moom jabar ju rafet la waaye tamit kim kim bàyyi teint noir bu set la maa ngi gëstu maa ngi gëstu affaire yi fa non eh, xale bu jongoma fii gis naa xale bu baax sax bu nee na wërëñ eh, hmm. eh, indi la fotoy ndaw si nga gis ko il ma lijjanti loolu <laughs> Mira baa bëggante léegi wóor na hmm? Fidèle non man moom Fidèle baa wóor na baa dañ doon ñu dara yéen waaw fidèle wóoratul parce que na fidèle ma ngi ah. fidèle xalaat ñi fidèloon ñi ngi fidèle ba tey am ñoo xamante wax dañuy wax loo xam ne gëmuñu ko boo xam ne ma nga cay dem te fekk gëmu ko su ko defee bu xëy amee mariage am wala dara ñu ni kii déedéet fekk yooyu ñi fidèloon démb ñi ngi fidèle ba tey célébrité yi fidèluñ de parce que cas yu mel nii dafa bëri ah, la nekkee célébrité comme ñeneen ñëpp. cas yu mel nii dafa bëri de. Mm. bëgganteeg nit. Mm. jox ko mm. kàddoom. nga xëy xëy dem ci leneen. trahison ak ak te gel bi sax gore na. war lu tax may na ko temps. peut-être xëy na xol bi moo fipp ci tabaski bi rek. Mhm. noonu la ko gars yi mën a tuddee. ah mais mënoon na jàpp jàpp hmm? jàpp selfam rek. waaw parce que mariage bi consommé consommé na mariage. voilà comme mariage bi déjà donc hmm. bu mu mais nag mais nag war dafa metti de yéen trahison ak a metti. Mira Mira gëmoo ni tey buñ la trahiree. Hmm. dina metti nga muñ ko mais est-ce que doo xoolaat sa bopp ne kii moo amul sensu am ma gis nga gis nga xale bi ni mu jonga ma. billaay est-ce que du ma fu mu moo amul sensu am ma parce que. voilà valoriser sa bopp mais doo doo doo lii rek nii. waaw ah. da ngay da ngay da ngay lii rek comment dirais je. mais nag euh, na de trahison gis naa ñu mu téye añ de ñetti fan. ah ñu ngi bi moom métti. Ah. ak bëri doole. <laughs> man daal damaa jàpp ba mu sansam rek toogee mun xëy na yàlla dina ko may leneen lu gën noonu. mais dëgg bi conseil de madame. góor lëndëm de góor moo lëndëm. na comme jigéen ñi rek affaire moom fépp la nekke moom. non lëndëm na comme jigéen lëndëm ato bu ñu bu ñu jógee ci mag dañuy daan dem ci le golden boy de la musique sénégalaise Wally Ballago Seck muy tournée bi mu defoon fële ca Italie mu mel ni que doomi sénégalais ya fa nekkoon am na ci ñu baree bari ñoo xamante ni amul woon ticket mais li gën a garaaw image yaa ngi nii mooy dañoo dem jàpp porte saalu soirée bi sénégalais toj ko dugg par force yow yàq soirée jàmbur bi te amuñu woon ay ticket waale toog na deux heures de temps mënul way ndax dafa choqué affaire da ko bett xalaatul woon que ni peut-être am nañu sañ-sañ bi am nañu fit bi yàq soirée jàmbur bi nee na moom lu ko gën a metti mooy salle bi nga xamante ne ni moom la ñu toj porte bi ay sénégalais rek ñoo ko def amul benn nit bu weex tey boo gis boo xam ne def na fa affaire mal civilisé yi nga xamante ne nii peut-être ay fansam ñoo ko def mu nekk nag loo xam ne lu ko metti la lu ko naqari la loo xamante ne nii peut-être ñu ngi koy réclamer xalaatul woon ni sénégalais tey mën nañoo dund ak moom lii nii. parce que tey boo ñëwee ci soirée même boo amul ticket sax boo toogee am na mbalit mbalit mooy dernière dernière dernière soirée dina dina ubbi porte yi ngeen dugg donc munoon ngeen ko rafetal moom mhm. xolam yaatu na munoon na mhm. maye munoon na waxtaan ak gaayan bi mu tëddi porte yi moo ko gënaloon téeméeri junni bi yoon ñu toj porte bi non seulement day fay mhm. donc te bi àggul yàq nañ soirée bi xas nañ sénégalais yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekkoon Italie mu nekk image boo xamante ne ni dafa doy waar alors bu ñu jógee ci kooku nag yéen yéen soog commune soog

dem seetaan élément audit bi te ñëwaat ci plateau bi. est kii moo sol combinaison. porté na ay plainte rappeuse bii di Oudrey Diatta ñu gën koo xam ci di fraise yi loolu nag gannaaw génn bu mujj bii rappeuse bi amal keroog 21 juin ci fête de la musique bi te terrain ACAPES te li mu soloon daanaka soriwul akuk dumu maanaam daanaka yaramu neen la defoon image yooyu nag moo wër réseaux sociaux yi ci fan yi ñu génn ñu bari doon naqarlu anam bi nga xam ni ndaw si soloon na ko te ñu jàpp ni jékkul jaaduwul te dëppoowul it ak jikko yu baax yu ñu xamee démb réew mi